alhamdulillah alhamdulillahi allazi bi nahmati tatimu salihat wa tubarakul arakat wa tudaaful hasanat summa salaatu wasalaamu ala saydi sadat saydina muhammadin qiblatul arwah wa jismatul kaaba dawil islah wa man tabiam bi ihsan ila yawmiddin yéen mbokki jullit yi nekk ci réew mi ak yi ci bitim réew yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum ci seet bi ngeen xam di seet bi ñu xam di seet bu mag di Senclic TV ñu ngi wax mbooleem ku koy conseil ñu lay wax asalaamaaleykum di leen ziyaara bu baax te di leen balaax te di leen balaax ci at mu bees mii ñu fas yéene dugg di ñaan yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi alamin ñaan yàlla yàlla bu ko balaa yàq ñaan yàlla yàlla bu ko beekoor yàq ñaan yàlla yàlla bu ko ñàkk yàq ñaan yàlla tamit yàlla ci wér bari lool ku ci wéradi woon yàlla nga wér di ñaan yàlla tamit képp koo xamante ni yaa ngi ci jafe-jafe jafe-jafe bu mën ci doon ci at mii nga xamante ni moom la ñu jëyee ko dugg bu bees mu bees mi yàlla na ko yàlla def mu nekk sa at yàlla mën na ko sañ na ko yàlla ko yàlla def di ñaan yàlla tamit réew mi ak njiitam réew mi ak ñiy liggéeyee réew mi yëpp yàlla bokk leen aar def dal def fi jàmm def fi déggoo ba lépp loo xam ne ñu ngi koy xaal ci njiitam réew ak mboole membre du gouvernement bi yëpp liñ bëgg si ñoom ñu def ko loolu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def waaye naka noonu tamit di ñaanal suñu kilifay diine yi yàlla aar leen sàmm leen bàyyi leen suñu kanam ba ci kanam a kanam suñu kilifay aada yi ñu ngi leen ñaanal yàlla sàmm leen aar leen may leen xel mu ñu contré yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo nekk ci lali hôpital yàlla na yàlla fëgg seeni bopp ba delloo siwaat leen ci société bi naka noonu di ñaanal ñi nga xam dañoo nekk ci prison te it seen coobare dugal leen fa not suñu borom moo leen fa dugal yàlla yàlla génne leen foofu ñu nekk te bu ñu fa delloo yàlla bu ñu fa dellu siwaat ñaan yàlla nag mboolee mi mag yàlla na yàlla yàggal suñ kanam xale yàlla bind leen yaxi mag mu mel ni dellu siwaat naa fii ci siin bi set site bi ngeen xam ni moom ngeen miin moom ngeen xam di site boo xam ni moom la ñuy wax Senclic TV di site boo xamante nii ñu koy consommer ci réew mi bari na waaye ñu tey nag ñu ñëw nag ci thème boo xam ne dañuy wax ci Achoura ak la mu làmbool ndax nag Achoura defin yi bari na wala bu ñëwee ku si nekk yaa ngi ciy defee defin boo xam ne waaye lu si bari ñàkk xam la waaye nag la nga xamante ni moom moo cay diine ndax bis boobu dafa jullit yi dañoo boole ñaari naqar ñaari naqar lañ boole dañoo boole ay naqar naqar bu tiis lañ doole muy waa yonent bi lañ ci faagaagal ba pare am ci ñetti ndam damay wax nag naqar ak ndam bu fekkee dañoo booloo te naqar ba not dëgg-dëgg bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi xumbeel la dafay gën jublu ci ñaan yàlla ay astaghfirullah comme na ko mag ñi doon defee moomaa suura nag da ngay gis ni ci booba la bis jullit yi am nañ ci ñetti ndam ndax it ki nga xamante ni moom mooy aadama gannaaw bu yàlla dogee mu lekk garab ga ba yàlla wax ko wàcceel mu yàlla wax ko wax ko wàccal abandonné ko foofa ci aljana bekk laa ko li ñu tuddee personne non grata bis ba nga xam ne bis ba la ko la ko yàlla jéggal la ko yàlla nangul tuubam bisu Ashura la woon kon loolu ndam la ci julliti mboolem ci xeetu Seydina Muhammad benn ndama googu ñaareelu ndam ba dangay ngay gis yonent yàlla nuuxu gannaaw bu mu ootee junni at nga xam ne juróom fukki ya dong moom moo neex waaye waaye boo xoolee diirab junni at yi dara neexu ca ah, dafa nekk nit ñu dëgër bopp mu dem ba suñu borom daggloo ko gor loo ko gaal wala yettloo ko gaal defarloo ko gaal ni ko teg ko ci ndox mi wooteel mu yàkku la gëm ci mbindeef yi ci nit ñi ngeen ànd dem bisu tamxarit mooy bisu ansura ci la gaalam nga teewoon ca juudi moom nga dégg alxuraan ni was tawat ala juudi kon gaalam ga bis bii la teewoon mu ñaari ndam ñetteelu ndam ba euh, Moussa alayhi salaam yàlla ko yónni woon ca ka ko yoroon muy na yàlla joxoon ko tam kàttan mu kàccoor lool yàlla jeyeen ko lool ba yàlla dogal nag wax yàlla digal Moussa ni ko jël sa yet wi nga dóor ko ci géej gi jël sa yet wi nga dóor ko ci géej gi mu jël yet ba dóor ko ci géej ga moo ngi ñamu àndal dugg ca géej gee dem firaw na topp na ko ba ci gundi géej gi mu gis ni ñii ñu ngi dem te fi ñuy wax pënd la mu jekki-jekki moom dugg moo mbooloo ñu dem tuuti rek ndox ma ferme wu tànc leen moom fii la bëggoon wax ni laa ilaaha illa si bi bannu israila loolu alxuraan a koy nettali far yàlla fel gémmiñ ba bu ko defee nag ñetti ndam yi ci lët am nañ ko ci bisu Ashura mu des nag tiis ba tiis wa nag yenentu waa këram ki nga xamante ni mooy yesit mu yesit ibnu Aas moom moo jëloon posan jox soxnaay xasan sa soxnaay xasan la joxoon posan ba tooke ba def ko ci reeru tam mu def ko ci reeru waxtam xarit muy reer yi ñu màggal tey mu lekk ko faatu ci guddi gi ba set ñu yóbbu bàq ya suul bu ko defee en ah, suura di fukkeel ba di bis bi ñu war jàng ñaan yi bis booba noon ya nax ki nga xamante ni moom mooy Xasan jéem tëbalee ko màkka rëpptalee ko màkka mu génn mu génn mu génn nag war a jëme Irak ñu daal di koy karsa yoon wa daal di koy rendi daal koy rey moo ñoom ànd lan ba des ñaari nit kenn ki Zeynab la tudd kenn ki Ali bu ndaw mooy Zeynul Abidin Zeynab ak Zeynul Abidin ñoom ñaar ñoo ci des su ko defee nag xasan moomu bañ ko rayee dañoo jël bopp ba dagg ko daal di ko yóbbu nag fa nga xamante ni moom mooy Baxdaad daal di ko yóbbu nag daal di koy jëlee Baxdaad yóbbu ko Damas Yezid Yezid ibnu bi nga xamante ni moom moo tookee woon moom moo tookee woon kan ni moo waroon lan déggu njëkk gi ci tasian ci fukkee ci juróom-ñeenteel bi Yezid mooma daal di décrété nag ay ay feet wala feet la décrété oo xale yi góor ya daal di leen jox ay naaru góor ñuy dóori petaaw ñuy dóori pétard ñuy dóori ay bal ñuy kontaan ñu ne waa yonent bi jeex nañ ñuy fecc di fecc fecc moom nag moom moo xaw a niróo lii tey Sénégal ñu tuddee taajaboon mu mel ni nag kon mbiru taajaboon ak mbiru Ansura ñaari xew-xew yi moo ci am ma jàpp ni nag bu fekkee ni xew-xew bànneex dafa ñëw jaxasoo ak li nga xamante ni moom mooy naqar naqar ba gën a noot foofu ndax lañ nañu faagaagal boom leen ñooñ ci ahlu bayti rasulilah lañ bokk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp mooy si ngooñ waaye alquran moo ñu wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kon dama bëgg a wax ni ñun yónnent mooy suñ roykaay yónnent moomee nag ay waa këram lañu jël boom leen ci bisu asura kon bisu asura nag xeet yónnent bi buñ ko waree màggal kon dëgg-dëgg war nañ ñoo soppi facette bañ koy màggalee war nañoo soppi système bi nga xam ne moom lañ koy màggalee bu bokkut ak na système bii ma gis ñu koy màggalee ci miim réew màggal moo xam ni góor ak jigéen ñi ngi sol góor ak jigéen ñi ngi weccoo ay yére boo gisee góor ñi ngi sol yére jigéen jigéen ñi ñi ngi sol yére góor ñenn ñi ngi peintre seen ay kanam di fecc su ko defee sax si fecc moom dangay gis ñoo xam ne dañuy dem ba jaxasoo sax bay këf alali jàmbur wala nga indi violence kon damay wax ni na xeeti taaje bon loolu dëgg-dëgg dara nekku ci farata du sunna du farata kon nag ku ko mën a baaji oyofal ko day am solo bés yu mel nii nag képp ku dénk xam wara di ci leeral lan ndax Sénégal dañoo dëkk dëkk boo xam ne dëkk bu gëm aada lañ fii daal aada daf fee demine diine looloo waral sax nag yenn xeeti xew-xew yi ñu ko fiy def te duñ ci laaj lañ la ci diine wax waaye damay wax ne Achoura ak ni mu bindoo dëgg bëri na ñoo xamante ni dañ ciy wax naan xaraam ci ñi nga xamante ni ñooñ ci mbokk suñ suñ mbokk ustaas yi wala xam jàngkat yi yooyu yëpp nag wuuteeg déggin moo ci am waaye damay wax ni nag li nga xamante ni moom mooy Achoura ak na mel ñaan ci yàlla ñaan googu du bidaa ndax defoo loo defoo defoo ci loo xamante ni luñ xamutoon la luñ xamoon lañ fi doon lañ fi def ñaan yàlla luñ xam la xul walaaw yooyu ñuy jàng ñaan yàlla luñ fiy xam la hasbunallaahu wa ni'mal wakiil boobu ñu def ci lendemain bi boobu luñ xam la ñaan yàlla la rek ndax it mag ñi amoon nañ culture bu doy ni ni at mu ngi dugg te li mu làmbool xamuñu ko ci ay danse ñu bëgg wax danse ya mu làmbool ak xéewal ya nga xam ne moom la làmbool danse yàlla musal leen ci xéewal yàlla sëmbatal ko seen kaw ñoo ne nañ def ñaan ngir ñaa lay tayee ko at mi kon loolu bokk na ci li ko sababoon kon nag suñ mbokki doom yi soxna yi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñoom néew dégg-dégg tax nañ loo wax ñu ne bidaa xaraam ñooñ ti maa ngi attiré seen attention lu fi amul ci daal amul bu fekkee li ñuy def ci tamxarit daal taajaboon bi daal laa xam ni moom ak yenn xeeti li yi moom amul fenn cëslaay ci diine mais quant ñaan yi moom ku dem ci alxuraan fekk fa dalilam ku dem ci sunna it fekk fa cëslaayam kon loolu nañ ko oyafal su ko defee nag moom asura mi ngi noonu xanaa su ma la waxee loolu dinaa la wax ni la bis boobu dañuy bëgg ko woor ci yow mi nga xamante ni yaa ngi may bàyyi xel di ma déglu euh, woor gi nag yonente sallallahu alayhi wasallam bisu taasiyan bi la wooroon bisu ba asura bi nag dafa jógee koo Màkka jëm Medina fekk yéeféri di ko naan di ko di ko fekk mu yéeféri di ko di ko yiliti di ko di ko di ko màggal mu laaj leen lu tax ngeen koy màggal ñu ne ko ñun de bés bii da nga gisoon ni na kat ci la ko euh, Firawna kat ci la ko yàlla musaloon ca noonam ba di eh, Moussa Ka ci la ko yàlla musaloon ca noonam ba di Firawna léegi mu ne waaw baax na far yàlla def mu ne bu déwénee bu ma fekkee dinaa war déwén te fekk ko wóoru ko kon yonent bu ñu la laajee nel bisu ansura la bisu taasiyan la woor bisu ansura wóoru ko waaye boobu nag moom daanaka nit woor na ko mu nangu ko d'accord ko kon loolu waral ñuy woor ñaari fan yi kon su ko defee nag ku woor benn fan ba yem fa fi mën naa am da ngaa dégg ni yonent bi nga roy waaye ku woor ñaari fan yëpp maam waxam jëm waxoon ñooñu ca fa màkka Euh, moom nga moom nga dëggal ba tax nga woor ñaari fan yi loolu rek la kon nag su boobaa bés bi bokk bëgg bokk nañ ci bés bi siyaa bokk bëgg nañ ci bés bi li ñu sopp ci bés bi mooy siyaare borom xam bokk na ci bés bi liñ li ñu bëgg ci bés bi mooy nga raay boppam jirim waaye boo ko raayee na nga yëkkati sa poos jox ko raay bi nag day tekki ni moom ñàkk na baay waaye ñàkk gim ñàkk baay yow mi nga xamante ni yaa koy raay war ngaa xam ne ñàkk baay lu métti la waaye moom it mu am ñeewante ni man kat sama baay dundatul waaye am na ñoo xam ne ñu ngi may xelu am na ñoo xam bàyyi xel su ko defee loolu bokk na ci bis bokk na ci lendemain bi bu ñaanee pare nga raay seeti borom xam-xam waaye dox ci bokk waaye seeti tamit koo xam ne jirim la nga yëkkati sa xaalis jox ko raay boppam loolu dañ ko ci sopp sopp nañ ci li ñu tuddee tusngal mooy jël ñaas yooyu di ko ñu ngi koy jaay ci marché bi jël ko def ko sa kanam yooyu tusngal la yoo xam ne sunna la yoo xam ne dañ ko dañ ko cee dañ ko cee fonk kon bis bi daal mu ngi noonu waaye li nga xamante ni daal moom lañ koy màggale ci wàllam fo mi daal loolu ba tey ma continuer di ci insister baaxut daganut kon nañ ko teg ci suuf li nga xamante ni moom mooy farataay bis bi daal istixfaar julli ci yonent bi jàng xul walaaw loolu moom am na ci laay ci alquran kon nag bu kenn wax ni bidaa la li nga xamante ni nag moom mooy cere yi ak ak reer yooyu moom daanaka amul cëslaay ci ci ci diine amul cëslaay tamit ci sunna waaye nag aada boo xamante ni dëgg-dëgg bu fekkee da nga ci dajale sa mbokk tamit Euh, fexe tamit ba ki koo xam ne fonk nga ko nga yëkkati bool tibbal ko ñaan ni fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee de loolu soo ko dàqee dara nekku ci waaye daal def ko def boo xam ne def bu ëpp ba ñenn ñi seen sëy dañ ciy yëngu da ngay gis koo xamante ni dafay tibb bool bëgg ko yóbbul njëkkam par yàlla def lam tibb sax doyut waaye mu yemale ko ci kër gi njëkkale jàppal ko ci inde wala ñu koy gaaruwaale moom de dafa mel ni dara amul ci kër gi xeet yi demee noonu loolu bokk na ci li yëngal société bi te dara du ci farata du farata du sunna na moo ngi noonu nañ oyofal mbir yooyu tey fonk ci jaamu yàlla ndaxit yàlla wax dëgg yàlla lépp loo xam ne jëf la joo xamante ne jëfam la rek jaamu yàlla la ndax ñu mën koo ragal kon nag nañ bañ a fàtte suñ bopp ci biir bés ñaan ci yàlla ndax it mu bees day dugg at mu màggat dafay taru at mu at mu màggat dafay dem at mu bees dugg te at mu bees la ci yàlla def ci ay xéewal bëgg nga bum la ci yàlla def ci ay danse bëgg nga mu sori la kon nag war ngaa ñaan waruñ koo màggalee teeruwaay mbumbaay góor soli yore jigéen jigéen soli yore góor bu ko defee ñu génn si mbedd bi yenn taay mu jur violence ñuy perturbé ñenn ñi yor feebar xamoo ban xeetu feebar lañ yor nga di ko perturbé tëgg ndënd wala ngay tëgg bool yooyu yëpp dafa indi jafe-jafe yoo xamante ni boo xool ci société bi su ko defee su boobaa maa ngi attiré ndaw ñi wala jeunesse bi nañ bàyyi xel ci loolu wax wax dëgg yàlla la koy def deux heures de temps rek la deux heures de temps yoo xam ne yàlla mën la cee bindee la bàkkaar boo xamante ni du ko faar mukk du effacé wu mukk kon nag dëgg-dëgg fexe la yor sa kurus def astaghfirullah da julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ay xul walaaw ñaan yi nga xamante ni moom moo gën a jekk nga def ko soo ko defee incha allahu rabbi yàlla dina mën nga dajee xéewal boobu bis su ko defee la nga xamante ni moom moo ci tiis aman ci waa kër yonent bi nga defal leen ñaan ñoom it suuf sedd seen kaw loolu incha allah dafay daal di baax su ko defee daal lii mooy asura nii ci résumé lii ci tënk moom mooy asura su ko defee daal asura mu ngi noonu yàlla def nañ ci waaye defal nañ ci lam ñu defal ci xéewal wax naa la ko ñett la li nga xamante ni moom la ñuy def ci balaati wax naa la ko waa kër yonent yéen ca boom kon su ko defee asura mu ngi noonu su ko defee maa ngi ñaan yàlla na defal dégg ak topp di ñaan yi réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def sutura euh, di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo tawat ñu nekk ci la lopitaal bi di leen ñaanal yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñëwaat ci société bi waaye di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan yàlla fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee déwén di ñaan at mu ñëw rek yàlla na dàq at mu ñëw yàlla na dàq yàlla dàq fi balaa saxal fi naataange du bale xol yi yaare yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def lu ci leer ci yàlla lu ci lënam ci man mii la seen mbokk seen xarit imam Mor Seck moo doon jàkkaarloog yéen fii ci seen seen Senclic TV wax leen li nga xamante ni moom moo am ci Ansura mooy tandiku loolu lépp loo xam ni fo la waaye lépp loo xamante ni farat la ci sunna ñuy rottu ci bis bi di ñaan yàlla yàlla defal dégg ak topp in urid illa l islam astataatu ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib